السلام عليكم ورحمة الله أهل مجموعة البيان والتبيين من من النت لنا زيارة كي رفلو قلب نميدقه جميع محمد الحسن بي لرفلوا تقوايم الجنة الجنة اليوم دنيا يلا بولن يتخل من نتس بولن يجبل സാക്കുള്ള മസാല ദീപ് വർക്ക് sartu jawharatu kamal mu ni loolu bokkul ci suuratu sixa yi sartul kamal la ak li mu ni pour na place bi ma diwoon benn nit moo ngi jàpp ñeente sallallahu alayhi wa sallam dina la fekkati ak xulafa aw l arbaa 20 heures mu ne nan koy jàpp sa xol teewlu ko xëy na sa xol loolu daal laa bëggoon mu wax ñu ban téere la nekk loolu lay sàkku te man nga ko leeral daal ngir gëstu ji loolu daal ci ban téere la nekk lan muy dalil bi والسلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق نوصل الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالظفر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بوكي albayaan wa tabyin maa ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel di leen ñaanal yàlla di sàkku ci yéen ngeen ñaanal yàlla bu baax di am mbégte ak kontaante ci àndaat ak yéen ci laaj ak tontu yi laaj bi nag xam naa ni rotoon na fi démb mbokk mi di sàkku ay leeral ak i tegtal ak i preuve ci wax ji ñu tontu woon ci mbiram teewlu suuratu Shaykh ak ci tamit li ñuy wax juróom manaam ngay toog di jàng jawharatul kamal faaw mum bërëb boo xam ne juróom benn nit xaj nañ fa dinañ ci indi leeral yoo xam ne dinañ sukkandiku ci téere yi comme moom nim ko sàkkoo ci ñun xam naa li ñu waxoon nag dañ ko tënkoon lool waaye moo nekk ci téere yi rek ah incha allah dinañ ko yaatal tey ba mu gën a leer incha allah boo xoolee ci page bi ma njëkk dugal euh, boo xoolee ci page bi ma njëkk dugal ci li ma ci mbind mu rouge bi mu xonk bi dañuy gis ni dafay wax asaalis maanaam ñetteelu charte bi ci charte yi nga xam ne dafa bokk ci surutul kamal ci awraat yi <coughs> rawatina alwabifa mooy nga teewlu suurab sëriñ bi xaala qiraatil awraad jamono yi nga xam ne yaa ngi jàngi wird bi wal istimdaadi minhu nga sàkkoo tëbbu ci moom mu ne faqad zakaru fil jawaahiri tudd nañ ci jawaahirul maani anna min shartil wirdi bokk na ci sartak wirdu liman qadira alayhi ci ku ko mën loolu moo lay wan ni su surutu lu bokk ci surutu yi ndax lu bokk kon li man qadira alayhi ci ku ko mën loolu mooy tegtale ni lii kat la boo xam ne ki ko mën lañ ko teg kon ci sartu kamaal yi la bokk li man qadira alayhi ci ku ko mën istixdaaru suurati al qudwa teewlu suurab yonent bi sallallahu alayhi wasallam foofu itamit teewlu suurab yonent tekkiwul ni nataalu yonent ngay teewlu déedéet yonent bi sallallahu alayhi wasallam meloom suuraam kenn mënut koo teg kenn mënut ko laal ndax li mu représenté ko laal waaye foo laal ci jëmm nit ki moom nga laal ndax mooy dundal nit ñi muy ruuxu ruuxu boobu nag da koy teewlu muy ruuxul quds da koy teewlu di yëg ci sa bopp kell ak sa ruuxu yow loolu mooy istixdaar loolu nag fi ñu koy jaaree mooy ci sa sëriñ bi nga xam ne moo la jox wérde moom ngay teewlu boo ko teewloo teewlu sëriñam boo ko teewloo teewlu sew tijaan boo ko teewloo teewlu yonent bi sallallahu wa sallam boo ko teewloo teewlu borom bi subhanahu wa kon maqsad bi dëgg jubluwaay bi dëgg duut teewlu nii waaye mooy nga teewlu yàlla kon benn bi ngay laaj ñu ngi noonu ñaareel bi lu jëm ci juróom benn nit ñi boo xoolee ci ñeenteelu sàpp ci sàpp yi nga xam ne dafa aju ci wasifa boo demee ci Euh, page bu njëkk bi mu njëkk dugal boo demee ci adwa wa asala ci fiqhi tariqa tijaniya diñ ko fa fekk amma ñaareelu page bi ak ñetteel bi boo demee ci téere bi ñu tuddee ar risala shafiya fi fiqhi tariqa tijaniya nga xam ne Sidi Idris al Iraqi yi moo ko taalif diñ ko fa fekk ñeenteelu sart ci sartay jawharatul kamal mooy boo xoolee ci ñaareelu page bi da gis ni sartab ñeenteel bi mooy bërëb bu laab boobu nga xam ne foofu lañu diglee ñu jàngi fa jawharatul kamal ci fa bërëb la boo xam ne dafay am dafay mat lu tolloog juróom benn nit mën faa toog maanaam yaatuwaay warul ko ëpp mu teg ci ne bu fekkente ne bërëb bi laab na te waaja fa muy sujjóot rek lafa am bi maanaa mu xat lool kooku buy jàng wasifa na ko weccee ak ñaar fukki salaatul faatihi li ma uxliq la wax ci texte bu njëkk bi mu indi li borom munyatul murid wax mooy képp koo xam ne lottu nga ci laabal sa bopp wala sa yére wala place bi bi ngay jàngee wasifa li war ci yow mooy nga weccee lii nga xam ne mooy jawharatul kamal ñaar fukki salaatul faatihi waaye nag loolu nafu yax yax bi la yax bu ne nag dafa am déggit boo delloo ci taarix bi muy ibn arabi faayi mu ngi koy leeral dafa wax ni euh, mooy mooy buuya boo demee ci buuyatul mustafi dafa ne ñeenti bayti yooyu nga xam ne rot na jugee ci suñu sëriñ bi radiallahu taala anhu mu wax ni képp koo xam ne lottu nga ci laabab makaan laabab makaan laab ci yére laab ci ci ci sa jëmm ji wala koo xam ne farataam mooy tiim kooku jawharatul kamal daf koy soppee ñaar fukki salaatul faatihi suy wazifa mu ne nag wax jooju muy wax ne tahaaratul makaan namat maanaam bërëb bi na laab waaye bërëb bi na yaatu maa ngi jégalu ngelaw li euh, dama nekk ci mbedd euh, mu ne bu fekkente ne waaye bi jàngi wasifa dafa nekk ci bërëb boo xam ne jàpp na ni bërëb bi mën na fa jàng jawharatul kamal fi mu toog laab na waaye xool na ci kanamam wala ci ginnaawam foo xam ne juróom benn nit bu ñu nekkoon ak moom duñ toog mukk te tooguñ ci sobe mu ne kooku na weccee euh, ñaar fukki soxatul faati yi fukki jawharatul kamaal yeeg ñaar yi mu waroon a jàng waaye nag li ñu yitteel ci wax bi teg ci gudd na lool euh, boo ko liiree di nga gën a comprendre waaye li ñu yitteel ci wax bi mooy boo ñëwee ci ñetteelu paas bi lii mu encadré nga xam ne mooy leeral dëgg dëgg dëgg li ngay laaj te mooy li waxoon ni euh, bërëb boobu nga xam ne xat na ba juróom benn nit xajuñ fa mën nañ faa jàng jawaratul kamaal li ci suñ tegtal mi nii mooy dafa borom téere bi dafa wax ne faf xam bo xolé ci bi text bi ci ñentelu ligne bi ci dugg bi mu lay wax fa taqdiru fi ma yasi'u ستة من الناس لذات البقعة التي تطلب طهارتها لا لأجل من يحضر بها من لي ساكوتي بربويات بوبو دود لا بك دود دود بور ñañuy wax ni ñoo fay teew si muy yonantu bi sallallahu alayhi wasallam ak ñeenti saxaabaam ñuy juróom ak yow muy juróom benn mu ne duwut lool li mbir mi dëgg-dëgg mooy dañoo bëgg fi nga toog ak li ko wër lépp laab loolu lañ jublu moo tax mu ne mu ne euh, at taqdiru fi ma yasiu sitta min naasi لذات البقعة التي تطلب طهارتها لو لي أجي في بقعة في برب دنيا دنيا ساكو أغلابه لا لاجل من يحضر بها أجول في كنيا خمن يوم يوفيت والقصد من والقصد من هذا القدر ما نم نمتي دا يبوبو ما نم نمت جرم بين mu ne mooy rek attabaaudu an mahalli najaasa nga sori bërëb sobe ani tabaaudu an faasi zakir ani najaasa mu ne lim lim ci namm mooy ki nga xam ne dafay sikar jawharatul kamal ay nokkeem sori bërëb boo xam ne dafa am sobe kon loolu lañ ci jub li gëna leral nak limay wax mu indi mu ne ala tara ila man kana fi baytin saghirin ka bayt al bayt al matlub fi al khalwa bi hayth la yasi'u illa wahidan li لا faqat wal ardu lahu wal والعرض wal والغرض annahu tahirun lahu an yadhkura al jawha jawhara bal huwa مطالب بقراءتها في الوظيفة بلا شك والحضور من النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الأربعة حاصل قطعا mu ne xanaa gisoo kii nga xam ne dafa nekk ci néeg boo xam ne moom lañ sartal pour xalwa te yëpp xalwa xam nga yow kese yaa fay xaj ci nga si rek nga am moo tax mu ne néeg bi yaatuwut lu dul ci bërëb bi nga xam ne fa lay sëpp jëm buy si néeg boobu yi tax ñu jubli ci loolu mooy dafa war a laab mu ne kooku nekk foofu buy zikar li nga xam ne mooy wazifa dafay jàng jawharatul kamal ci lu amul benn sikk te yonent bi sallallahu alayhi ak i xulafaam dañ fay teew loolu moom luy am la qataan kon da ngay gis ni yaatuwaayu bërëb bi duut sababab teewu yonent sallallahu alayhi wasallam ak yooyu déedéet waaye sabab bi mooy na la na bërëb bi laab kon lu bërëb bi xat xat xat tam laab mën nga faa jàng jawaratul kamaal li ñuy wax kay mooy li gën boo amee fu gën a yaatu mooy li gën wallahu taala aalam xam naa texte bi yëpp mënuñ koo liir ndax dañoo nekk ci mbedd eh, lii sax ñuy dugal nii nekkuñu nekk dañoo dañoo woote ñu fotol ñu page yi yónnee ñu ko ñu mën koo dugal ndax eh, mën a ci joxe càkkuteefu ci koy laaj waaye dañoo nekk ci tukki euh, ñu ngi jégalu bu baax asalaamaaleykum wa rahmatullah waa majmuhu al bayan wa tajdim ñu ngi leen di ziare bu baax seen bokk baay Abdou Jaxate di leen nuyu di leen màggal di ziare waa groupe bi di beral nuyu ak ziara suñu fas ñu sëriñ Mouhamadou Mbaye ñu ngi koy ziare bu baax di ko ñaanal yàlla yàlla dafa ko jàmm loolu suturaam yokku xam-xamam barkent yàlla Mahmoud ak Siddu Seex di wax ne ñu ngi am contentement ak mbégte bu rëy ci darsu waaw ak Jawaahirul Maani bi di xaar darsu Duratul Xarida bi ñu ngi koy ñaan moom it eh, doon te sax dañuy jégglu rek xam naa kàddu yi ñaan lay doon moom Duratul Xarida bi kon comme ay xasit la ay woy la waaw dars yi moom moo bañ nekk dars yi gudd yoo xam ne daal comme dañuy bëgg di mokkal ab yaat yi mm, mu xaw euh, gàtt lool daal doon ba juróomi ab yaat sax insha allahu bu àndee ak leeral rek dafa doy sëkk dañ koy sàkku ci bu baax a baax di am benn question bu ñuy laajte euh, dama doon wasifa yàlla dogal bi ma demee ba toll ci jëhratul kamal am tollu ñaari per rek bon tombeeg maa ngi yéeg oto ma dugg ci oto bi ndax damay dagg jawharatul kamal damay dagg wasifa bi wala damay arrêté jawharatul kamal bi wattee ko salaatul fatiha may laaj loolu ci àtt bi ak ndax day war istixfaar wala yooyu man ci sàkku al ustaaz moom mu ngi ci leeral insha allah jërëjëf salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu sëriñ bi ñu lay nuyu di ziar di la ndokkeel di kontaan bu baax ci laaj bi amaa li jëm ci darsu durratul xarida bi xam naa duratu xarida nag xam naa niñ ko foogee du noonu maanaam moom dafay sharx bayti yi nga xam ne ñoom la Cheikh Mouhammad eh, Nabi fi tënkoon ci alyaqutatul farida kon téere boobu du ay bayit sharxa la sharxa la ci bayti yooyu Euh, beneen bi mooy sa laaj bi nga laaj maanaam ki nga xam ne dafa fas wasifa ba yegg ci jawaratul kamal oto taxaw mu war yëg ci oto ndax kooku dafay continuer jawaratul kamalam ci oto bi wala nu muy def ala kulli xaal jawaratul kamal moom kenn du ko jàng di war maanaam kenn du war ci kaw oto di ko jàng loolu moom ulama u tariqa dañ ko xaraamal euh, ndax daf koy dagg kenn du commencé wird di ko dagg kenn du commencé wird di ko dagg kenn yi tamit du nekk ci wazifa ba jàng ay eh, ay ter ci jawharatul kamal di ko wëttee salaatul faatihi déedéet day muñ jàng li nga xam ne moom mooy jawharatul kamal gi ba mat bu ko defee mu xaar beneen oto yéeg dem loolu daal laa gis ni loolu la war a def ndax wirdu kenn du ko commencé di ko dagg badal yi tamit dafa am lu ko waral du lu ñëw rek nga badal déedéet badal dafa am lu ko waral surtout ki nga xam ne tàmbali na jawharatul kamal bu fekkoon sax tàmbaleegul jawharatul kamal oto ñëw mu yéeg kooku mën nañoo wax ni mën na koo badal ala kulli haal wallahu taala alam وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته سيدنا دارا درامي نولي نيو دي لزيارة باح نلاج لاج بو أمسلو ياتو لول نك مولانا شهو تجان سيري كوي تنمي تي جوارة الكمال دا وحدي جزن عربي الحاتمي موقع وحد سيو جنسيو تي خباب موي تطهر بماء الغيب إن كنت ذا سر وإلا تيمم بالصعيد وبالصخر وقدم إماما كنت أنت أمامه وصلي صلاة الفجر في أول العصر فهذه صلاة العارفين بربهم فإن كنت منهم فانضه البر بالبحر أه، مولانا شيخ تجان سيرينا كونه xamal ni الغيب ul xëyb bi لين xam ne moom lañ lay junj ngir nga laab si ndax baytu sàkkul ak laab bi maa il xëy bi ci ndoxam xëy bu in kunta ba sirrin bu fekkee borom mbóot nga wa illaa boo mënta am maawul xëy bi te yamam na nga tiim bi faay bi ci pàkk xobi saxi ak ci suuf ak ci doj waqaddim jiital ima jiitalal imaaman yoo xam ne kunta anta amaamahu yow yaa nekkoon ci kanamam jiital ko wasalli na nga julli salaatal fajri julleeg fajar ci awwalil asri ci njëlbeen ak tàkkusaan fa haadihi lii solaatul aarifina mooy bi rabbihim ci seen borom fa in kunta minhum bu fekkee ci aarif yi nga bokk fantahil barra bil bahri na nga jël géej gi nga wis ci jéel gi Mawlaana Seexu Tijaan ne maa ul xayb boobu gaa di wax nga mu ngi lay junj mu ne maa ul alfaidu min xadatil quds te mooy téyi bi ñuy tuddee téyeb kon mën nga wax ni rek maawul xayb mooy xaqiqatul muhammadiya mu ne na nga laab ci faydul akbar bëbb gu mag gi nga xam ne mooy bëbbee ci xadratul qudsi muy téyeb yàlla bu set bi alladi bi nga xam ne hiya xadratu laaxut mooy xadarab laaxut xadarab laaxut nag mooy xadarab yonantu sallallahu alayhi wa sallam mu ne wa yu'abbaru anhu inda al aarifin aarifina yi dañ koy tuddee bil fatxi fatxu kon maa ul gayb mooy fatx mu ne fa inna tasmiyatahu bil fatxi fiihi tasaamuxun mu ne ndax tuddee giñ ko tuddee fatxu dafa nekk mbir moo xam ne tasaamux moo ci am maanaam eh, ngir nga mën a gën a mën a am dégg la mu ne ndax fatxu mooy zawalul xujubil xaailati bayna al abdi wa bayna xabsil quds mooy ñoreekub kiiraay di dox ci diggante jaam bi péeb yàlla bi wa huwa alfi xijaab te téeméeri junni xijaab la wa xamsuuna wa sittuuna alf téeméeri junni xijaab ak euh, jun téeméeri junni ak xamsun ak juróom ak juróom benn fukk ak junni ci ay xijaab mu ne wa zawalu hadihi alhujub bi asriha wal fath ñoree kub kiiraa yi yëpp moom la ñuy wax fathu ndax li annahu fathun an il inqilaaq daf mooy ubbeeku ci lu tëju woon kon ma ul gay bi dara lu dul jeex ci péyeb yàlla bii nga xam ne moom lañuy tuddee laaxut kon tatahar bi ma il gay mooy rek na laab sima al ghaybi in kunta za sirrin su fekkee borom ak mbóot nga jàngkat yi nag dama leen di yebal rek ñu dem ci e, jawahirul maani ci xaaj bi ñaareel bi soriwul dara ci alfaslu saalis wala Cheikh Tidiane mu ngi ko ci yaatal lool waaye fii dañuy tënk rek Mawlana Cheikh Tidiane daf ko firee al faydul akbar muy faydu yi nga xam ne bëbb yi nga xam ne mooy wàcc ci jaam bi ginnaaw ba mu amee fatxu bu bàyyeekoo ci téyeb yàlla bi ndax jaam bi su duggee ci maanaam su duggee ci téyeb yàlla bi rek ak niteem dafay jeex bu ko defee nag yatataharumu laab bi sababihi min jamil axlaaq ci sabab ak dugg ci péeyu yàlla bi ci lay laabee ci mbooleem jikko yi nga xam ne dañ ko doon bañ muy jikkoy bàyyi may jikkoy yi nga xam ne dafa naturel ci moom jikkoy seytaane yi lu mel ni rëy yéem say jëf ngistal euh, jàng ci leneen lu dul yàlla bëgg àdduna fàtte alaxira fen sos wor pexe pexe mu bon yooyu yëpp da koy génn ci xolam ndax dugg gin dugg ci péeb yàlla bi mooy laabal yëpp ci xolam kon nag dugg googu moom lañ jublu ci li nga xam ne mooy at tatahuru bi maa il gayb mawlana cheikh tidiane ne ama tathiru bil faydil aqdas laab ci faydul aqdas muy ci bëbb set googu mu ne fa innahu yati qahran an tajallin ilahiyin la madxala fii lil abd mu ne duut jaam ji mooy góorgóorlu ba am laab googu déedéet waaye laab googu day jugee ci sa jëlli boo xam ne yàllaa koy def wàccee ko ci jaamam loolu yoonab jaam bi nekku ci te te jëlli bu wàccee ci jaam bi dafay màbbal jëm jëm mbooleem li jaam bi àndal mu génnee ko ci ak yëgam ak gis-gisam ak lim teegoon yépp ci xeetu xam-xam daal koy sànni ci géej ak fanaa ul fanaa te jeex ci jeex bu ko defee nag mu daal di koy sànni ci géej gi nga xam ne lañ tuddee albahrul azam géej gu mag gi wa sirrul akbar mbóot bu mag mi mi nga xam ne yàlla ngi koy junj ci xadisul qudsi yonentu sallallahu alayhi wasallam mu ngi koy junj ci xadis ne inna allaha xalaqa aadama ala suratihi yàlla ngi bind aadama ci meloom moom yàlla kon jaam bi ci jëmmam ji loolu mooy tegtale ni ndekete cosaanal jëmmi jaam bi yépp ci yàlla la jóge wa yaqdifuhu fi baxrin mu tàbbal ko ci beneen géej géej googu nag la xadis bi junju ne borom bi dafa wax ni euh, laa tasauni ardi wala samaai wa yasauni qalbu abdil mumin asamaan xajuma ci suuf xajuma ci waaye xaj naa ci xolub jaam kon loolu tegtal bu rëy la ci junj yi nga xam ne Cheikh Tidiane junj na ko ci ciri bi nga xam ne ciri na woon li mu wax nag ne in kunta za sirrin eh, wax wa in kunta za bu fekkee borom ak mbóot nga mbóot ki mooy mooy borom fatfu rek ndax fatfu <clears throat> bi ñuy wax ni muy at tatahur bi maayal gay munta am lu dul ci borom fatfu moo tax Cheikh Tidiane radiyallahu anhu dafa ne والسر هنا مبوت ني وحي هو الفيض من الانوار الهيه موي بوب جي ني خام ني نغي جوجي سي لير يالا جي يريد على العبد دي توك سي جام بي قبل الفتح لو مو ينفتح اذا سرى في ذاته برويا تلي سي جمم دي نك وقلبه اثقلم حمل الذات على تلد الحق موي بوسي جيني دوم ادم مودم ساكو دي يالا موتاخ محمد بن سيون فإن كنت تهوى أن تهيم بحبي فبادر إلى ذات الله العلية mu ne bu fekkee da ngay woote bëgg Cheikh Ibrahima Niass radiallahu taala anhu dawal dem wuti ji yàlla wuti yàlla nag dafa am lu lay buur loo jëm ci moom mooy mbóot ñii ñi tuddee alfaydu min anwaari ilaahiya mbóot ñi bëbbee ci leerab yàlla di toq ci xolu jaam bi lu jiitu muy am fatfu bu royaatalee nag ci jëmmam ji royaatal ci xol bi daf koy puuse ngir mu dem sàkku yàlla top yàlla waye daf koy tere mbolem neen ak mbolem tiaxan ba mu dum moy ko ci ay waxam ak i ak i kon in kunta zafirin lim ci nam moy annahu la yaridu ala al abdi ma ذكر ذكر من الفتح والفيض الأقدس إلا إذا ورد عليه السر المذكور قبله من لي وقت جام بي في فتح دو رتم مك lu dut yàlla def ci moom mbóot mi nga xam ne mooy al anwarul ilahiya bu ko defee nag mu mu am mboot moomu nga xam ne dina mën a dékku maa ul xëy kon mbóot moom mooy ndab liy dékku maa ul xëy léegi nag ku amul sirru boobu kooku amul amul cër ci li nga xam ne moom mooy fatxu bii ñuy wax wala faydul aqdas bii ñuy wax moo tax mu ne ko wa illaa bu fekkee amoo mbóot moomu te yammoon tiimal bi saidi ci pàkk ci suuf wa bi ak ci li nga xam ne moom mooy doj ndax yii ñooy zahiri zahiri shar'i rek la lay tegtal zahiri shar'i nag mooy laab gi nga xam ne jaam bi daf koy jëfee ñu togg ko ko mu di ko defee mu mu mu muy euh, mu di ko def saa yu ñàkkee ndox bu jàppee Euh, sariya soppandil ko ko ne ku mën ngaa jël suuf mu wuutu ndox loolu nag liñ ci war a xamee mooy laabab tiim bokkut ak laabab ndox waaye nag laabab tiim dafay dagan su ngànt amee maanaam bu ndox ñàkkee kon lii mooy càkkutéef jii muy wax fii moo tax mu ne in kunta in kunta za sirrin bu fekkee bokk nga ci borom mbooti nga xam ne mooy ar euh, maanaam bokk nga ci arbabul asrar fatutahar bi maayil xay na nga laabee ci ndoxum xay bi ndax laab ci ndoxu xay bu mooy laab laab goo xam ne day matale lépp nga mën cee jëlee sa mbooleem càkku teefi léegi nag bu fekkee amoo mbóot moomu nag demal nga tiimi demal nga moo tax kii nga xam ne mooy abul qasim imaamul junaydi bañ ko laajee lan mooy muhib dafa ne mooy ki jaam bi nga xam ne dafa fexe bakkanam ba bakkanam dee mu jokkoog boroomam ci tudd di ko tudd di taxaw ci ay mbiru boroomam dëgg dëgg taxaw di xoolee ci xoolee bëti xoolam bëti xolam di ci xool di gis yàlla mu ne jaam boobu nga xam ne xolam bi yépp leer yàlla moo ko lakk ba mu set wépp jëmmam set naan waayam set kooku dara du rot ci moom lu dul mbóotam yàlla bi léegi jaam bii nag nga xam ne moom dem na ba yegg foofu ci set kooku mooy ki nga xam ne dafa laab ci maawul xëy bi bu fekkee nag bokkoo ci ñooñu bokkoo ci borom mbóot yi na nga dem laab ci suuf wala ci doj comme ki nga xam ne dafa ñàkk ndox kooku day dem euh, tiin laab suuf nag ak laab ci doj liñ jublu fii mooy li yonantu bi sallallahu alayhi wa wax taxallaku bi axlaasillah na ngeen jikkoo jikko yàlla yi xadisul qudsi yi waxaat ni haada diinun itadaytuhu li nafsi wa liman ahab lii diine la boo xam ne جرمل ناكو سما بوب اك كيب كو بغ ولا يصلحه الا السخاء والتكرم تدار دوكو ييينال لودول تابي اك تيرانغا فاصلي كون نين كو ييينال بالسخاء والتكريم في تابي اك تيرانغا ما صحبتم فاج ينغ اند مو يونت بي صلى الله عليه وسلم وحاتني ان الله يحب عالي الامور ويكره سفسافها يال دا فا بوجي مبير يو mu dellu waxaat ni istaxyu min allahi xaqal xayaa leen yàlla dëggi dëggi rus saxaaba yi ne ko ñun de rus nañ yàlla te ñu ko koy sante mu ne li ngeen di wax du noonu de waaye rus yàlla mooy nga wattu sa bopp ak li ëmb wattu sa biir ak li ëmb euh, ngay fàttaliku dee saa képp ku def lii rek rus nga yàlla dëggi dëggi rus ak yeneen xadis yoo xam ne wax na ci maanaa bi kon lim bëgg a wax mooy jaam bi dafa war a taqoo lépp loo xam ne moo koy jokkaleg borom bi subhanahu wa taala kon boo déggee muy wax ki nga xam ne amagul mbóot na dem laab yi ci laab jële nga xam ne mooy laabab tiim maanaam na góor góorlu ca lam yi kocc koccoo ci shariatu boobu ba ba mën a yëgg fi nga xam ne moom mooy xaqiqa ndax eh, ibnu arabi alxaatimi waxoon na ni eh, man kusifat lahu an sifaati alzamtuhul adab wa man kusifat lahu an zaati alzamtuhul atab nee na loolu yàlla ko wax képp koo xam ne wuññil naa ko samay melo dinaa fexe mu dina takkoog teggin waaye ku ma sama jëmm ji nag kooku day xalku xalku googu mooy dayob càkkutéefu aarif bi te mooy jeex ci borom bi subhaanahu wa taala kon wa illaa tayammam bi saxri bi bi saidi aw bi faxri lim ci namm mooy nga góor góorlu ba mën a yëgg ci yoon yi nga xam ne moom la ñu tuddee jamay jamay maanaam eh, yoon yi nga xam ne fa lépp daje te foofu rek nga mën a jaar ba mën a jeex ci yàlla li muy wax nag ne waqat dim na nga jiital imaaman ilimaan boo xam ne kunta nekk nga yow anta yow amaamawu ci kanamam mu ne anna al imaam alladi yalzimu taqdimuhu haahuna yasixu an yuqaal huwa shaari ilimaan bi nga xam ne moom lañ war a jiital fii wér na ñu war a wax ni mooy ci yoonal te mooy yonent bi sallallahu alayhi wa mu ne dina wér tam ñu ne mooy xel mu ne bu fekkee dañoo wax ni mooy yonent bi sallallahu alayhi wa ci jàmm liñ ci namm mooy xaytu euh, wasala wasalat ay wasalta ayuha al ila tathiri bi maa al mu ne yow jaam bi soo demee ba yegg ci laab ci ndoxam xëybu liñ tuddoon ci ginnaaw nga jot sa dayob càkkutéef bëgg a julli ngir sa borom faaw rek nga jiital ilimaan bu mag boobu a kudwa yitlu mag lolu nga roy ci ginnaawam ndax ci téebi yàlla bi munuñ faa roy kenn kudut yonent bi salallahu alehi wasallama ndax mooy waasita bi dox sa digganteg sa borom te boo ko jéggee amatoo dara boo julliwul ci ginnaawam amatoo dara kon foofu ci yonent rek la ñuy sujjóot kon képp ku sujjootul ci pays boobu ci yonent bi salallahu alehi wasallam yow doo yegg ci yàlla lim na mën nag ci qaddim imaaman kunta anta imaamahu jiitalal ilimaan boo xam ne yow yaa nekkoon ci kanamam waxoon naa la ilimaan bi ñaari firi lañ ko firi benn bi mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam yi nga xam ne kenn mënta dugg ci téeb yàlla bi dugg ci moom ngay jaare kon kooku mooy sa ilimaan ñaareel bi mooy liñ tuddee liñ firee al aql muy xel te xel fii liñ ci namm mooy al aqlu rabbaani xel ak borom bi nga xam ne mooy xel yi nga xam ne moo xiir xadatul xay bi bi nga xam ne melo la ci ruuxu lu jëkk yàlla bi bind jëmm ndax moom nim meloon ci ruuxu mi ngi mel ni rek gis nim mel ci bët te ku ne xam na ni gis moo wuñ ñi dëgg dëgg xaqaaiq yi nga xam ne moom la bët ëmb gis moo ko wuñu niki noonu aqlu rabbaani bi meloo la woon ne ruuxu du jiitu yàlla di forme jëm ñi doomu aadama ci la yàlla di feeñalee mboolem xaqaaiq yi nga xam ne mooy xaqaaiqul baatina ci moom la ñuy xamee xaqiqatul xaqi ci ci ci moom la ñuy xamee itamit baatil dëgg dëgg luy neen dëgg dëgg ci moom la ame amee kasfu dëggi dëggi kasfu kon ñaari piri yi lay firee imaam bi nga xam ne euh, yow yaa ko jiitu woon aqlu rabbaani yi nag Cheikh Tidiane wax nañu ñetti martaba la am euh, martaba bu njëkk bi mooy maxdu nuuri rabbaani al mansib fi baatini xaqqati ruux euh, mooy aqlu rabbaani bi nga ne mooy leeral ak borom bi subhanahu wa taala bi mu ci cosaan nga xam ne mooy euh, mansab maanaam mooy gëraat bi ñuy ràngal xaqiqatu ruux ci baatinam te euh, loolu mooy gindi nit ki di ko yóbbu ci dayoog càkkutéefam te aqlu rabbaani moom aarif billaahi rek ñoo koy am ñaareel bi mooy al aqlul kulli bi nga xam ne moo hiir mbooleem li nga xam ne la ñu tuddee ak zulumaatul xafiya maanaam lëndëm lëndëm yu woyof ci ba nga xam ne fan kasafat lahu xaqatul asyaa'il kawniya zahiran wa batinan ba ñu wuññil ko li nga xam ne mooy dëgg dëgg mbiru kawnu ci zahir ak ci batin digganteem nag ak aqlu bu njëkk bi li ci do li ci dox rek mooy aqlul awal tan kasifu lahul asyaa zahiran wa batinan moom dañ koy wuññil mbir yi ci zahir ak batin mu janoog mbooleem li ñu tuddee mbootam xadratul kursi ba pare toog ci kursi yu sultan al azma ne ci buur bi nga xam ne mooy guur bu mag bi nga xam ne léppi yàlla ci moom lay daje amma ñaareelu aql bi mooy ki nga xam ne ixtijibat anul xadrat ilahia bi xujubin kaxiir dafa yiiru ci téeb yàlla bi ci ay kiiraay yu bare bari amul benn cër ci mbootam téeb borom bi subhanahu wa taala lu dul rek euh, dañ ko ci wuññil dëgg-dëgg li nga xam ne mooy xaqaayiqul kawn ab zahira ak baatina kon Mawlana Cheikh Tidiane radiallahu taala anhu nii la ko imaam boobu nag muy wax ni nanga ko jiital euh, te jublu ci al aqlu rabbaani moom fu mu toll rek dafay woote ak mat ci boppam dafay woote ab sell ci boppam ci jëmmam ak ci jeexitalam ak aju bi nga xam ne aju na ko ci borom bi subhanahu wa taala dalam settantalam namm-nammam lépp kon nag kooku dafa war ñu jiital ko ndax moom mooy jas bu ki ko jiital mooy jas bu ki ko jiital jëmee ko ci téyeb yàlla bi ci set boobu nga xam ne set na ko laabee na ko ci maaul rëy bi kon kooku dafa war ñu topp ko dafa war ñu topp ko dafa war ñu jiital ko moo tax kunta anta amaamahu li ñuy junj mooy ila xaalati shaxsi xaytu kaanat basariya ci jamono ji nga xam ne nit ki dafay dund ci basariya toom topp bànneexu bakkanam jël bànneexu bakkanam def ko yàlla jum war war a jaamu def ko imaan boo xam ne moom la war a roy jël àqul rabbaani bi sànni ci ginnaawi ginnaawam kon moom moo jiitu woon àqul rabbaani ngir topp bànneexu bakkanam su demee nag ba yeewu ki nga xam ne moom moo ko jiitu woon ngir topp bànneexu bakkanam moom lay jiital rek bu ko defee nag wa salli mu julli salaata salli na julli salaatal fajri julli fajar ci awalil asri ci njëlbeen ak tàkkusaan mooy jullil julli gu mel ni julli fajar ci njëlbeen ak tàkkusaan fajru fii liñ ci namm mooy fajru ijaadil arwaax maanaam ndoor teg xamal ruux yi xaytu badarat min hadratil adam keroog ba nga xamee ni e, yàlla ballal na jantab ruuxu ñu bàyyeekoo ci téyeb ñàkk ñëw ci téyeg am kon ñu tànn baatu ismu fajr boobu ndax leer gi nga xam ne leer nañ ko keroog ba leen yàlla ballalee ñu génnee ci xaskatu zaat ñëw taxawee xaskatul muhammad yi ci awalil asri ci awali asri umril arwaax maanaam ci njëlbeen ak jamonoy dundu ruuxu yi mooy njëlbeen ak sosu ruuxu yi léegi loolu li muy junj mooy yusiru ila xaalati ruux ci xaalab ruuxu wa ma kaanat alayhi min kamaali tahara ci lim nekkoon ci matub laab ak set ak matub xamam yàlla ak mat gi nga xam ne mat na ko ci mbëggeel bi nga xam ne borom bi subhanahu wa taala na ruuxu googu ak fàtte gi nga xam ne moom ruuxu fàtte na ko lu duwut yàlla góor ci téeb yàlla bi di roy ci li nga xam ne moom la yàlla di digle moo tax ruuxu xaalam ci njëlbeenu mbir mi mooy ci njëlbeenu sosam mooy awal nasri te mooy rek soqeeku bi nga xam ne soqeekoo na ko ci jëm yàlla ci feeñam bu njëkk ci moom lay tuddee salaatal fajr kon moom la wala jeetyaa ne fa salli salatan ka salaati al arwah fi awali asri umriha jullil julli gu ni julli gu ruuxu ci seen njëlbeen ak dund ba ñu ballee ci seen balluwaay bi nga xam ne moom mooy zaatullahi l aliya loolu nag mu ne loolu mooy maarifatu billahi bi nga xam ne bu mat la alal xaalati al bi nga xam ne moom la ñuy kon lim ci namm ci rek mooy euh, yow mi nga xam ne yaa jëloon sa bakkan bi jiital ko ci kanamu yàlla wëlbatikul jël bakkan mu roy ci ginnaaw ndax bakkan mooy ci soxla set waaye bakkan mooy ci soxla jëm ci borom bi subhanahu wa taala waaye bakkan nag foofu bi maanaa xol mu ne lii mooy julli aarifina yi ci seen borom mooy julli aarifina yi ci seen borom waaw fa in kunta minhum bu fekkee ci ñoom nga bokk ay minal aarifin fandahil barra bil bahri na nga jël ndox ndoxam géej gis ko ci jéeri ji bar fii lim ci jublu mooy zahiru sharia digle bi yàlla ak yim la togg nga war koo taxaw di ko jëfee ci ko ubudiyatu ubudatu baxru lim ci namm fii mooy baxrul xaqiqa bi nga xam ne mu ngi koy junj ne amul benn jëf joo xam ne yaa ngi koy def ci digle yàlla yim la togg lu dul ni dafa war a ngok li nga xam ne moom mooy baxrul xaqiqa ndax yow yaa ngi seedu sa borom sa kanam gëm ni moo peeg sa lépp kon yow waroo def lenn lenn lenn lenn loo xam ne dafay wuuteeg li nga xam ne moom mooy baxru sharia kon ci tënk nii la ko Mawlana Cheikh Tidiane firee ñi nga xam ne nag ñoo ci gën a bëgg a yaatal nañ dellu ci jawaaru maani ci juz u ñaareel bi euh, ci alfaslu saalis loolu la ci saat Tidiane di firi yaatal na ko lool lool lool wasalaamaaleykum wa rahmatullah